da ngay xool mbër yi nga xamante ni ah waxoo fi waxoo fi ka bëgg démb wule ne ko na ko na na jël avance bi. may ma tuuti am na ko ma woo démb ci guddi may sama kawlaal tëdd di si daan télé ku turu mun naa la woon heure bi heure bu mu ma woo mun naa la ko woon de. continuer la mun naa la ko woon. ma woo ko mu ne ma war nañu sama démb bu gisan di waxtaan nañ ma ne ko dem naa fa kerook yóbbu sama booy koñ ba suñu kër Patte d'Oie mu ne ma dégg naa wuli di wax nii moom ma ko njëkk a wax seetaan ma ko sax siñ bi ku lay jàppale ci làmb ku lay jàppale dañ ko waxee ci télé doo ko waxe waaye Fall la ñu waxtaan dëgg wuli na dem entraîné jàng lu may jàngaat Adama Diouf mbëru séeréer la mun na ko Hmm? waaye Pape naa nee na su ma ko woowoon sax du foofu la ko war a waxee amaatuma waxuma ko fo du foofu la ko war a waxee sëñ bi. mais dafa bëgg dafa bëgg du nga jàppale ko moo tax mu waxee noonu. waaw bu bëggee ma jàppale ko sama kër ngi ni bu ma fi.